alaikum la coalition Samasakadou. Assalamu alaikum l'intercoalition. coalition may ma rek parce que tey suñu cadeau. honorable député Pape Djibril Fall mon moo yor suñu cadeau. tey ngeen may ma rek ma mën ko introduire parce que ñun coalition ñu woote une wuñu Nous sommes une coalition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 moy politique dañ kay def ak sincérité wante tamit ci dëgg Dakar yéen lay waxal képp kuy yeewu bi Dakar fi xana ko doon yéeféer mais soy tulit ya xam musulman nga ya xam catholique nga xam ngeen bu baax lan la alxuraan wax ci nit bu wax dëgg la Bible tamit di rejeter nit bu wax dëgg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 Assalamualaikum, Assalamualaikum Senegal. Assalamualaikum Dakar Assalamualaikum Biskuteri. yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax kenn ku ci nekk ci turam ak santam di si jiital nag kilifa yi nga xamante ni ñoo ñu dalal tey ci Biscuiterie yi yaatalal ñu bi ba ñu mën si jàmm ak salaam. muy le maire Djibril Wade ñu bëgg ngeen tàcc ko bu baax di ci teg ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi nga xam ñoom ñooy la caution morale de la coalition sàmm sa kàddu muy Serigne Moustapha Sy Moustarchidine wal Moustarchidaat gërëm Serigne Moustapha Sy bu baax Serigne Moustapha Serigne Moustapha a été de tous les combats démocratiques kon Serigne Moustapha du ma ci taxaw lu su ko wóorul ne sàmm sa kàddu nekk ci ay tappale la nekk kon du ñëw bokk sàmm sa kàddu di gërëm bu baax di gërëm bu baax koo xamante ni tamit il a été de tous les combats démocratiques ba mu nekkee ndawam ba tey dafa jël dundam yëpp jagleel ko askanu Sénégal jagleel ko waa Dakar ñu daal di koy jël teg ko injustice bu nekk tey mu continuer di taxawal Sénégal di taxawal Dakar je le président Khalifa Ababacar Sall. di gërëm di gërëm ñi nga xamante ni ñoom la ñu àndal di gërëm ñi nga xamante ni ñoom lañu àndal tey. te budul woon budul won dama bëgg bu baax ñu dégluma ma comme Sénégal légui dafa bëri ay manipulateur wax jafé fi lool dama bëgg ñu dégluma bu baax ñi and tay ci intercoalition bi sudul won woon seen bëgg Sénégal sudul won woon seen xam état sudul won woon seen xam danger bi nga xamanteni ni mooy gëte Sénégal sudul won xam ñi nga xamanteni ni xenn ak revanche moom moo fees seen xol ba bi ñu ñëwee ñaari weer tal tal utiliser la justice pour règlement de compte li tal mooy bëgg utiliser ONAS ak pour enrichissement illicite kon ci intercoalition bi duñu kon loolu justifier kilifa yi ànd Dakar yépp daal ne sàmm sa kàddu la ñuy voteel muy intercoalition takku wàllu ak jàmm ak njëriñ ànd ak sàmm sa kàddu pour dimbali Sénégal kon loolu mooy justifier loolu mooy justifier l'intercoalition encore une fois li ma leen di wax dama bëgg mu nekk yóbbal boo xamante ni nañu ko jàpp ñun ñëpp li justifier intercoalition takku wàllu ak jàmm ak njëriñ suñu wóoroon ne pour défendre l'intérêt général suñu Woron, suñu si nous wóoroon ne dañu fi ñëw oui, pour suñu Nous ne pour nous, wóoroon ne ñëw pour nous. lu dimbali Sénégal kon intercoalition bi nous ko nous parce que nous nous dimbali Sénégal c'est pour le bien des Dakarois, c'est pour le bien du Sénégal, c'est pour le bien de la jeunesse sénégalaise. loolu justifié justifier la pertinence de l'intercoalition Benen bi nak ma bëgg wa Dakar comme tay Dakar le ñuy bu doon la tamit la même chose lay def mais comme tu comme tay Dakar le ñuy ma bëgg ñu xamné le choix de la tête de liste de Dakar est un choix réfléchi, est un choix mûri, est un choix pertinent et on ne pouvait pas mieux faire pour Dakar. Je vous nomme Pape Babacar Beng. te tey Son tey je jëlee la la de Dakar Moi, dans Dakar bu leen Muk Dakar bu leen juum ñi ñu pour Dakar pas papa Babakar Mbeng nek un maire irréprochable et exceptionnel muy muy Ndeye geuy Top nga xamanteni foko foo ci ay valeur bop et weesu muy sunu jigéen Ndeye de Diène nekone une brillante parlementaire muy Joseph Sar, docteur Joseph sar nek kilifa bu mag parti démocratique sénégalais muy. Euh, le monsieur le maire Cheikh Ahmadou Bamba Fall de la Médina ak kilifa yi nga xamanteni ni ñom lañu le grand maire de Dakar Nous Jean Baptiste Diouf kon ñi pour Dakar ce sont des Dakarois yo xamante kenn du wër fan la dëkk kenn Dakar kon Dakar la liste samusakadou sa au-delà des militants des entités qui composent la coalition les Dakarois et les Dakaroises qui ne s'identifient pas au parti politique doivent faire le bon choix, qui est le choix de la raison, qui est le choix le plus pertinent. Oui, ça vous regarde pour Dakar. il faut corriger les erreurs monumentales du régime de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye bokk na ci erreur yi gën a mag yu ñu def mu ngeen may ma tuuti bokk na ci erreur yi ñu gën a def ñoom recruté wuñ secteur privé baa ngi tëdd ci suuf tey jii ñoom rek ñooy recruter ci réew mi ñoom rek ñooy xëy recruter 42 charges de mission yéen ñëpp xam ngeen ne la vocation d'un état c'est pas de créer c'est pas de recruter la vocation d'un État, c'est de créer les mécanismes pour permettre à un secteur privé viable de pouvoir embaucher et de résorber le problème du chômage. Les guignons, les guignons, non seulement recruter, vous voyez, Bougan Gaïtani, recruter dañ koo tëj ne pour ne pas fi recruter Quand dama bëgg dama bëgg Libérer libéré Bougane libérer Bougan libéré Libere Bougan Gaydani, libérer Bougan Gaydani. Libérer Bougan, Libere Bougan, Libere Bougan, Libere Bougan. Té té mang len koy wax kérok ci Tamba ak Bakel sénégalais yi am ngor ak jom yépp am nañu gàcce kérok Ko xamante ni da ngaa dem pour dimbali

la libération immédiate et sans condition de Bougane Gaïdani pour me continuer avec nous le combat victorieux au soir du 17 novembre 2024 Il exiger aussi la libération xam le commissaire Cheikhna à suñu ko libéré tey ñoom am ci parce que li dañ lay parce que bëgg nga wax ñu la wax ko nous demandons la libération sans condition de Ahmed nous demandons la libération de tous les détenus politiques du Sénégal mais nous demandons aussi la libération de la jeunesse sénégalaise du cours manipuler nañu manipuler nous

L'opposition sénégalaise doit gagner le 17 novembre pour permettre au Sénégal, pour permettre au Sénégal, pour permettre au Sénégal d'avoir, d'avoir enfin un président de la République pour mën a toog fauteuil keroog Diomaye li wax bi au secours le peuple permettez-moi de s'asseoir sur le fauteuil Lire rek la wax dimbali l'en ma ma toog fauteuil parce que damaa catu comme dafa te que crise institutionnelle la la meilleure manière de rendre service aujourd'hui à Bassirou de Faye c'est de gagner les, les élections et d'imposer la cohabitation pour corriger li nga xamante ni moom euh, le pays damay jeexale nag ak ki nga xamante avant may jeexal ma bëgg ngeen standing ovation les autres grands leaders de la coalition Sàmm Sa le président Thierno Bocoum de Agir qui abat un travail remarquable. Dama un une grande dame de valeur une championne une championne une championne du secteur privé national une championne du secteur privé national kon Anta Babacar Ngom dama bëgg may leen ma jigéenu Sénégal am ngeen raison ay raison voteel sàmm sa kàtt Ngoone Diop bi dëkk fii raison la Ngouda Diène raison la Anta Babacar Ngom raison la Ndeye Top raison la la grande lionne de Cambérène raison-le Taïdi, Barina et raison yu pour voter la coalition Samou la coalition Samou a la meilleure tête de liste de ces élections Ça m'a beaucoup intercoalition bi ñu Balma, Balma, mais nous avons la meilleure tête de liste Barthélémy Toy dama bëgg ngeen defal ko standing ovation cet homme cet homme que dama leen di wax dara ànd nawle la ñu ànd ànd nawle la ñu ànd Barthélémy Diaz Barthélémy Diaz suñu wóoroon ne nekkul ci Sénégal ak luy doxal Sénégal du ñu ànd ak moom su wóoroon déglu bu baax su wóoroon Anta Babacar Ngom ne ko Barthélémy ci ay pexe la ne du ànd ak moom su ma wóoroon su ma wóoroon ne ci loolu la nekk du ma ànd ak moom su wóoroon sëñ Moustapha Sy ne ci loolu la nekk du ànd ak moom su wóoroon Khalifa Ababacar Sall ne ci loolu la nekk du ànd ak moom su wóoroon Thierno Bocoum ne ci loolu la nekk du ànd ak moom su wóoroon Moussa ci loolu la nekk du ànd ak moom kon dama bëgg ñu xam ne cet homme que vous devant vous a tout donné au Sénégal keroog bi ñu demee Tamba keroog bu ñu demee tàmba Nous ko accueillir Tamba nous avons accueillir Barthélémy Toye en 2005 à Tamba nous koy avons ci nous ñi fi di nous avons ca la avons neexoon nous Sénégal accueilli Sénégal avons accueilli attribution attribution pour ñu nous Sénégal pour ñu dëkk kon ki Sénégal tànn biñ ko tànn ak kilifa diine yi ak kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak secteur privé bi ak baykat yi ak nappkat yi ak marchand ambulant yi ak artisan yi ak jigéen ñi maa ngi leen di yëkkati sama loxo di leen xamal ne leen wóolu nañu bi Diaz kon wóolu leen ko et que tout Sénégal et que tout Sénégal puisse accorder une importance particulière à ce choix qui a été fait par des hommes de raison et de valeur. Comme jeunesse au Sénégal, au Sénégal, magou Sénégal, ndawu Sénégal, ne ratons pas le rendez-vous du 17 novembre. Ne ratons pas le rendez-vous du 17 novembre. Sénégal qui est le 24 mars Amon nañu Yakar, qui est nga xamante tële nañu ay tooñkat lañ ay kat lañ ay ay warkat lañ amuñu kaddu xamuñu luñu ñu bi xamuñu état xamuñu dara serigne ngundu serigne ngundu ak borom maag sénégalais yi basta sénégalais yi doyna sénégalais yi nee nañu bëgg la cohabitation au soir du 17 novembre 2014 kon 2024 du 17 novembre 2024 kon gis na sénégalais yi le cortège un peu partout au Sénégal le cortège qui ñi nga le cortège des gens qui ont simulé le cortège des gens qui n'ont fait que tromper le peuple les les sénégalais nous xaar la coalition et l'intercoalition partout au Sénégal réservé leen un accueil triomphal et que ñu eggale liggéey boobu le 17 novembre 2024 kon loolu lañ ne woon tey nañ ko seq ak waxtaan ak euh, waa Biscuiterie yi di leen wax ne le Dakar na mokk Sénégal na mokk il faut qu'on gagne ces élections le 17 novembre 2024 Nous ngi leen di gërëm leen asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh